jëlee ci gaaw bi Serigne Saliou Seck lañ ci àndal. nag jàmm ñàkk bàmmeelup biir bi am ci nguur geek administration bi moo yitteel code du bajaan bu l'observateur ba mu jël xalimaam xëy def ci gastu journal Futur Média bett bindu ko ci yow xëtam yéenekaay bi ne léegi li ñu seetlu moo di lu ñu tàmmoon di waxtaane ci biir nguur gi wala ay mbir yoo xam ne ci administration bi lañ koy tënkee da ngay xëy gis ko ci pénc mi nekkit loo xam ne danger la ci am réew dara umpeetul ñëpp ak ñëpp a lu ñu waxtaane ci biir nguur gi wala ci biir administration bi guddi bu ñu yeewoo gis ko ci grand yi bataaxal bi police génne woon di ca wax dañuy loolu Oscar Siara moo ci mujj moom mi ñu bëri njortu ne mooy Oscar Siara di Ousmane Sonko daanaka yéen kaay yi ñu xëyandool yépp moo fa nekk si du quotidien ne Ousmane na boppam la xewoon ca bureau bu doyen ko doon déglu ci li ko Adji Sarr jiiñ Les Échos ne Ousmane Sonko koy ba tey nee na gars yi dañ koo kompaloo ba noppet mu lim ñi mu njortu ne ñoo ko doon kompaloo boole ci ne dina porter plainte Serigne Bassirou Gueye mi fi nekkoon procureur de la République Vox Populi ne Ousmane Sonko koy bàyyilul dara dara gars yi fare ci nguur gi susu aane dalee na menacé ba noppi défier leen enquête yéen a kaay duppee ko grand moom xëy samp laaj ne ndax Ousmane Sonko mi pare na ngir dem ci ab procès journal bi ne li tax ñu samp bi laaj moo di ne ñetti question yi ëppoon solo te doyen des juges laaj ko Ousmane Sonko lànk la def ne du ca tontu ba noppi nag test ADN bi ñu koy wax mu ni gaay buñ ko xalaat ndax moom du jox deretam ay comploteur journal L'Info ne comploteur yooyee kay Ousmane Sonko démasqué na leen tribune yéen a kaay ne confrontation ak Adji Sarr lu mënul ñàkk la te Ousmane Sonko bëgg ko Birame Faye bu task force APR ne Sonko setalub dara ma jaral jaral na ko lu nekk lii tax mu nekk danger ci réew mi Ousmane Sonko mel ni ko naan ko lii danger kay nguur gi ñoo koy def ñoom ñi ko bëgg a kompaloo doon ko lalal ndëgg sërëx far tàbbi ca Pape Diop mi tàbbi woon assemblée nationale di pencum ndawi réew ma nee na da cay génnaat l'observateur ne njiitul bokk gis-gis di Pape Diop tekki na ndombal tànkam ca pencum ndawi réew ma di assemblée nationale ab lettre de démission la bind jébbal ko président assemblée nationale a remplacé remplacé jumtukaay ya nekk ca hôpital principal bu ndakaaru jot na Walf Quotidien war nañ cee gaaw laata bay di way mbuus ndax hôpital principal bu ndakaaru jamono ji ci urgence la nekk L'As Quotidien principal kay fi mu toll moo gën a feebar malade yan fay dalal Le Quotidien moom xëy defub gëstu ci malade yi amee jàngoroy sida yéenekaay bi ne gaay ñoo ngi teg pexe yoo xam ne fii ak atum 2030 dina fi jeex li jeexagul kay mooy jafe-jafe ñi aw mar moo ngi leen di rey ña ca des facture yi ndox yoo xam ne na la ko yàlla nëbb le soleil national ne wàllu courant ak defaraat stade Iba Mar Diop ak piscine olympique AFD def na ci juróom fukki milliards ci xaalisu CFA ngir lépp leer li leer te wóor moo di Siteu ak Papa suba la sëgg bëre sunu lamb yéen kaay ne ca arène nationale la ñuy nekkit combat boo xam ni tëggum dëndëkum semmiñ lay doon neex benn naqari benn li tax journal bi bind ci aw xëtam duma ku man sa morom